asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, man maa ngi tudd Zakaria Fall nekk ci bureau recette bu mairie Touba ah, ñëw tey fii teew ci ndaje bi nga xam ne ñi ngi ko def ci ndigalul maire Abdou Lahad ànd ceeg suñu kilifa gi di Serigne Babacar Mbacké di conseil municipal jiite délégation bi ngir jataay bi nga xam ne mooy jataay bi ñuy delloo taximaan yi carte yi nga xam ne moom lañ doon jox mooy carte autorisation de circuler yi. waaw tey indi nañ euh, lu tolloog cinq cent euh, euh, pluto cent vingt et une waaw mais nag lañ fa déposé gum ci demande yegg na ci huit cent nangam. da di nag dafa am liggéey buñ ci def boo xam ne dafa laajoon xarañte te it équipe yi ko doon def bariwul woon waaye nag renforcer nañ ko ndax loolu ñu naan code QR du caag ni ñëpp ko mën. mooy code bi nga xam ne mooy lëm données yi waaye nag yàlla dogal na am na ñaar ba ñett ñoo xam ne fi mu ne ñu ngi koy tëgg ba bis bu ne mën nañoo génne lum néew néew euh, plus de cent cinquante cartes. fi mu ne li ñu recensé gum euh, war na toll ci à peu huit cent et quelques garages plutôt cent et quelques copies la boo ko xoolee boo ko mandargalee war na toll ci ay deux cent deux cent et quelques waaw ni ñu ciy bénéficié wu mooy d' abord organiser secteur bi. ndax itam métier bu dee nit ki da koo jàng mën ko wuti lijaase am ko muy permis de mu ñëw bëgg cee daan doole ngir yor boppam yor njabootam keneen jóge ci bi biti rax ci di ko yàq ba mënatu cee jariñu loolu tax ngir aar ko ñu fexe ba képp ku ko am chauffeur taxi ngay doon bu bindu cib garage ndax du caagin foo jóge rek ñu jëlal la saw carte day man jóge ca garage ba dossier ba ca garage bi nga koy déposé ñu yóbbu ko ca fédération bi ñu indil ñu ko ñu defar ko pour mën ko sécuriser. waaw date bi nag euh, defuñ ci date d'expiration seulement bu réeree ñun automatiquement dañuy désactiver carte bi réer ndax am nañ possibilité neexut a trafiquer ndax foo ko jëlee rek comme sa Wave bii ni nga xam ne bu réeroon tey sa téléphone nga mën ko bloquer mën nañ bloquer carte bi nga wut siwaat ko ki ko amagul woon itam bu demee ci garage déposé déposer dossier jox ko chef de garage bi dana ko yóbbu ca fédération ba mu mu indi ko ci ñun. waaw ndax itam euh, nit du liggéey ñuy yàq loolu moom dañ ci dul sax maslaa ndax ak defar foo ko gisee rek ka yàq nga ca wet ga mm-hmm. waaye képp ku sa borom dogal ñu dog sa tànk ci yàq toolu yàq bi moom la leen ne sanction yi ca war yëpp dana waaw loolu yemul rek ci transport taxi ba ci charrette yi bu njëkk xañ na organisation amu ci woon biñ leen commencé. ndax charrette itam fédération la woon ñetti fédération ñu fexe ba unifier leen boole leen ñuy benn ñu dem ba tey jii am na garage yu charrette bu ñu war a def garage modèle xañ na damay bañ a tudd tur ngir njëlbeen gi mhm. te yeggaguñ ca waaye garage boobu day am plaque ca garage ba am tur wuñ ko tuddee garage ba danañ ko assainir ba nga xam ne ku fay jaay danañ la nattal fa ngay toog garage bi day am euh, euh, euh, day am statut boo xam ne nii mairie moo ko koy jox ndax itam il faut ñu ñu ñu ñu euh, comment dirais-je il faut ñu formaliser ko ba nga xam ne li fi nekkoon di làmbatoo ko yooyu day jeex garage bi day am carte d'identité boo xam ca mairie lay jóge ñu reconnaître ko fañ koy teg ñoo ko fay teg bu dee barab ba mu nekk baaxul ñu seet fa baax ñu teg ko fa bu dee fam ne daa xat ñu seet fu yaatu ñu teg ko fa bu dee tam fam nekk mu yàqulul kenn dara ñu bàyyi ko fa waaye nag lë ko wërit environnement bi dañ koy organiser kii jaay dañ koy aligner organiser leen ba nga xam ne dañuy seetal barab ba kenn du ko taqal te nit ñi danañ organiser ko. suñ diggante ak police collaboration bu rafet la tey ci suba la ma daaf jox lettre circulaire bu ànd ak spécimen wu carte bii ñu yor ma yóbbul ko commissaire suba danaa yóbbul commandant gendarmerie euh, ba tey sax yemul foofu ndax ñii di suñu mbokki Baay Faal yi di di waa kër Cheikh Ibrahima yi nga xam ne dañ leen sant ab liggéey ci dëkk bi. ñun nag ñoom ñu ngi liggéey en étroite collaboration dañuy ñëw ci daaf muy dem ci ñoom kon lépp benn la li ko yor moom li mu koy jariñ mooy danañ ko identifier identifier xam ne taximaan Touba la bu ñëwee buñ ko xoolee euh, ak code QR bi boo ko scanné da nga gis lépp li nga xam ne paramètres yi ci nekk lépp da nga ko am ku ko amul mbaa ku ko falsifié buñ ko scanné du génn ni bii di génn kon loolu déjà sécurisé na ko ñaareel bi kuy luubale tam bu ñu la identifié ñu jël sa immatriculation buñ ñëwee danañ leen mën na diw la barab sàngam la dëkk numéro téléphone am garage sàngam la. waaw ndax loo gis jéego la. Mhm. da ngay tàmbalee ci benn bu la benn boobu ba mu dëgër nga dem ci beneen bii nag dañoo bëgg samp ko ba mu taxaw. bu ko taxawee ñu jàll ci beneen étape loolu nga wax mën naa nekk incha allah. président commission des transport ci mairie Touba nekkal fa itam. ñi nga xam ne ñooy taximaan yi waaye jiite fédération taxi de Touba. waaw li ñu ñu defal li ñuy apporté suñu njëriñ bëri na te sëñ Zakaria wax na ci lu bëri ndax dina tax ñi nga xam ne ñoo doon rax taximaan yi te bokkuñu ci taximaan yi di yàq seenu liggéey ñu génn ci li nga xam ne mooy taxi mi mais dina tax itam ñu massifier mbooloo mi nga xam ne moom la ñu yor ndax Ibrahima wax na ko bëgg nañ changement parc automobile taxi te loolu ba la ñu. massifier ñi nga xam ñooy taximaan yi identifier leen xam nan la ñu toll xam itam ñu ci nekk fan la ñu féete donc itam xam ngeen ne comme ni ko sëñ Zakaria waxee garage yi dinañ leen identifier garage yi normal yëpp réglementé ko defal leen ay autorisation loolu lépp nag bu amee dina tax ñu mën a am li nga xam ne mooy changement parc automobile ndax euh, parc bi ñu yor ñëpp xam nañ ne du parc bi nga xam ne moom méngoo ak Touba waaye olof dafa wax ne bërëb bu ne la fay ñuul moo fa di ab ñàkk kon carte bi lim ñu apporté lu bare bari la loo xam ne kar lépp mu ngi ci kanam ndokk nag bi nga xamee monsieur le maire Abdou Lahad moom engagé wu na ci jàppale taximaan yi ba fépp fu ñu bëggee yegg ci seenu liggéey ci euh, lu baax ci yokkute ñu mën fa egg waaw xam nga carte yi moom ñun taximaan yi ñoo ko sàkku ci maire ñu bari sax gëmuñu woon ne maire dinañu ko nangul waaye yàlla dogal na mu nangul ñu ko ba ñu ngi koy liggéey ba ñu ngi koy joxe ñi nga xam ne nag gëmuñu ko buñ ko utul itam trois mois yi nga xam ne mooy délai bi buñ ci eggee képp ku ñu jàpp amuloo carte bi dinañ la fourrière nga fay vingt-huit mille ndax am na liggéey bu ci mairie war a def ak euh, force de l'ordre yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ngir bu buñ ci eggee ni ñuy contrôler droit de stationnement permis de conduire ak carte bi ak assurance noonu la ñuy contrôler carte bi képp ko xam ne amoo ko euh, dinañ la fourrière nga fay li nga xam ne nii mooy vingt-huit mille kon jàpp naa ne ñi nga xam ne amuñu ko li ñu leen di wax rek mooy nañu dem ci garage yi pour mën koo am ndax boo bokkul ci garage mënuloo koo am faaw nga bokk ci garage garage boobu itam bokk ci fédération bu nekk garage boo xam ne garage bu wér la en tout cas itam ñu ngi profité ci occasion bi di gën a tàllalaat loxo monsieur le mais surtout état bu senegal Ibrahima wax na ko soxla nañ ay formation soxla nañu ku ñu teg loxo ba nga xam ne euh, taxi mi ñu am ay taxi yu baax yu confort yoo xam ne itam dafay nekk ci loxo loxoy taximaan yi bëgguñu projet taxi boo xam ne day ñëw di dem ci yeneen i loxo ñun li ñu bëgg mooy projet taxi boo xam ne bu ñëwee dafay oyof nekk oto yu baax yoo xam ne ñoo koy xoolal suñu bopp ba mu doy nu nekk oto bu ñëwee dafay dem ci loxoy taximaan yi nga xam ne ñoo doon def taxi ci dëkk bi. waaw xam nga ñetti fédération ñoo fi nekk tey ñun ñetti ñëpp daje woon nañ ci bureau monsieur le maire réunion union des fédérations taxi déjà am na ñun ñetti fédération yëpp lëkkaloo nañ ànd di liggéey. yàlla dafa dogal nag tey ni ñu defee cérémonie bi euh, li ñu li ñu mujj waxtaane mooy euh, fédération bu nekk danañu ñëw sa fédération organiser leen li nga xam ne mooy cérémonie bi mais Matar nag yàlla dafa dogal euh, lu jiitu lii ñun ñaar suñu fédération yi dañoo ànd nekk benn sama njaboot mooy njabootu njabootu Matar njabootu Matar mooy sama njaboot ñu ànd nekk benn donc xëy na kenn rek moo ñëwagul 100 pour cent di président Pam Ndong mais jàpp na ne dina ñëw parce que mairie bi nga xam ne moo ñu lëkkale ñun ñëpp lëkkale lu ñu ba ñu am union des fédérations taxi de Touba kon mu mel ni ñun ñett dafay mel ni rek cere soow ak suukar boole nañ ko yëngal ko ba mu saf non liggéey bi amul dara lu jafe liggéey bi amul dara lu jafe parce que ñun ñett ñi ko séq ñun xam nañ ne li fi nekk mooy euh, ñun ñëpp ñu boole suñu ay doole pour taxaw euh, dëkk bi taxaw taxi liggéeyal sëriñ bi kon mhm. amul benn jafe-jafe boo xam ne dina ci am